alhamdulilahi rabil aalamiin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin salawatullahi wa salaamuhu wa ala wa ashaabihi ajmain mbokki jullit bu ñu santee sunu borom subhaanahu wa taala moom mi ñu wàcceel alquran di téeréem bu màgg bi pour defaree ko sunu dund àdduna ak àllaaxira ñu ngi koy sant cant amul app am na tàmbali waaye amulub app di ko ñaan itam mu yéegeel ñu cant googu nu dëppook màggaayu nguuram ga ak màggaayu jëmmam ja ñu ngi julli di sàkku ci moom mu wuutu ñu ci julli googu jullil ñu ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nu dëppook maqaamaam defal ñu ko itam ci sahabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ñu ñëw seen gannaaw di xeeñtu fañ jaaroon mbokki jaami yàlla yi alquranul karim suñ borom a ko tànnal boppam jële ko ca xam-xamam ba teral ko def ko it muy téere bi mujj ci téere yim daan wàccee ci jaamam ñi warlul ko itam ak sax ak ak béel ba beeg ba ñuy taxañee dénd bi dafay des incha allah lum mu warlu la moo tax loola ab jullit du ci sikki sàkka dëgg la goo xam ne ba ba ñuy taxañee dénd bi moom alquranul karim dara du ko fi jële du pexe du doole lottu nañ ñoom ñaar ñooñu ci jëlee fi kitaabullahi subhanahu wa taala keroog ba mu wàccee ca màkka yéefar yam fa fekkoon jàmmaarloo woon na téere bii ne du fi du fi am palaas waaye jaar na ci seen kaw pexe yaag doole ya jàll am fa palaas ñaari puissance yu mag yi fi nekkoon di romain yi ak persan yi jàmmaarloo woon nañoo moom ci seen jamono ne du fi am palaas waaye suñ borom bañ na not na seen nguur ya jox ko fa palaas gis nañu itam aw nit wu takkutoo bàyyikoo ko tugal diiru lu mat xarnu muy muy siècle muy la guerre croisade ne danañ ko fa jëlee jaar na ci seen kaw wéy ba tey mu ngi fi rek fii ci Afrique occidentale française gis nañu ay mbooloo takkutoo bàyyi ko waat ca tugal ñëw fii ne dañuy fay làmpub lislaam waaye ba tey jii tey la gën a leer mënuñ ci dara alquran daf fiy des réalité la bu bokk ci réalité yi àdduna bi feeg jant baa ngi fi suuf saa ngi fi mu nekkee fi noonu fi jant bi nekkee te kenn mënu ko fee jële ni nit lootee ci ëf jant bi mu fay du ko raw la lottee ci ëf alquranul karim pour fay ak leeram kon ñii jóg ba ko fee jëlee nañ noppalu doole yii yëpp romb nañ fi fexeel ko seeni pexe jëfandikoo seeni doole ba tey mu des fi kon nag congu yii nga xam ne ñu ngi ko koy songu di ko jaarale léegoo léeg ci ay sabotage ci ay théâtre ci ay sketch di ko jaarale sax léegoo léeg ci dogale ndongo yi ci mbedd yi di leen delloo ji ci seeni jur léegoo léeg ñu am songu songu sëriñ daara tëj dara kanam rek la jëm moom alquranul karim bu ko defee kon loolu ñii liggéey pour fay leeruk alquran nañ ko xam na colonialiste ya lottee woon noonu la newo colonialiste yi di lottee tey insha allah ci kanam téereb yàlla bu tedd bi tabaraka wa taala ko defee nag misaal yi nit mën a joxe na ñoo fi nekk ba tey bëri na lool yooyu duñ ci dugg tey seenu làmmiñ a fi nekk moom la ñuy jàngale ci sunu sunuy lekkool waxoon nañ biig ne ñun ba tey lekkool sénégalaise amaguñ ko ba tey jii seenub armée fi nekk seenub xaalis a fi nekk kon lii wane na ñoo fi nekk ba tey bëri na waaye dara nañ lottee woon démb na lañuy lottee tey bu ko defee nag sëriñ daara su ndaw si nañu bàyyi xel bu baax ne congu yi ñuy songu daara yi jubluwuñ ci lenn lu dul terroriser ñi nga xam ne ñu ngi ci biir daara yi pour bàyyi loo leen daara ndax su fekkee ne daara ji yor ko neexut doo doo noppalu sa soxna du noppalu waaw sa njabootu bopp duñ lekk suur duñ naan màndi duñ tëdd fu baax ñu teg ca boole koog di la pamti pamtee ka tëj boo amul pas-pas da nga naan ma koo baax waaye ëpp naa def la tax ngeen tànn kitaabullah subhaanahu wa taala xam ngeen ko bu baax moo di ne amul benn liggéey bu ko faree kaw te dañoo ñëw fii tool la àdduna tool la dañoo liggéey si rek benn liggéey farewu ko kaw moo xam nag liggéey ya aju ci daara boo ca mën a jàpp rek jàppal ne liggéey farewu ko kaw moo toog ca daara ja di ko jàngale tabaxal ka koy jàngale dimbale ka koy jàngale ci yére taaluba ye dimbale ka koy jàngale ci courant daara ja loolu yépp ci xeetu dimbale daara la bokk participer ci daara la bokk la tax ngeen di ko def nag yéen jullit ñi xam ngeen ko téere boo xam ne ñu ngi koy songu ci façon bu ne te ay doole di ko songu bis bu seet muy gën di jëm kanam faaw ñu koy songu danañ jaaxle ndax daara yi day lokk ci day yokk ci lim nombre taalibe yi day yokk nombre daara yi di yokk kon ma ma dalal seen xel ci ne yéen ñi nekk ci daara yi di jàngale ak yéen ñi nekk ci biti daara yi génne woon ci daara di ko jàppale na seen xel dal congu yi du yokk alquran lenn lu dul tedd nga ak teraanga kepp ak ak kawe nuñ ko gën a songee mu gën a kawe bi isnillahi tabaraka wa taala bu ko defee nag ñun sunu ba tey dafa war a jeexee ci lan ah waruñ nekk rek nag di def ay réaction naan alquran daf fiy sax da la daf fiy sax alquran daf fiy sax waaye am na nag lu ñu suñ borom sant suñ digganteeg alquran nañ ca góorgóorlu ndax kat nii nuy ñëwee di jàpp sëriñ daara yiy tëj am na lu ko waral loolee ko waral ca lañ war a wax jëlee ko fi lenn du sabab ba lu dul ñunu ñunu neen Sénégal téeméer boo compte juróom-ñeent fukk baak juróom ñun la ñun jullit ñi la kon suñu tànnee ah lu waroog alquran loola ñëw di songu alquran wax dëgg ñun ñoo songu alquran mos nañ ko fee wax jamono bu yàgg ci daara yi Sëñ Mansuur Ñang benn taalibe bu ñu fi reyoon bañ dajee maye leen ñoo ko rey de waxaat nañ ko fi ci benn daje ci sëñ daara buñ ñu fi tëjoon bañ dajee maye leen ñoo ko tëj de li tax ñoo ko tëj ñoo ko rey lan la suñ borom daf ñu joxoon téereem bii tëral ci àtte ne ku jël bakkan nañ jël bakkanam ñoom feder bu bàyyi ko fële ca France nañu weddi leen yàlla ci waxam jooju ki jël bakkanam nañ aar bakkanam ñu topp feder bu bàyyi yàlla bu boobaa nag kuñ fi rey ñun ñi teggi àtte yàlla ya sànni remplacer ko yooyu feder bu ñoo ko rey ñun ñëpp ay responsable sëñ daara buñ ñu fi tëjit nañ gëm ne ñoo ko tëj am na benn euh, mbokk bu ñu ko mës wax fii ci tribunalu Kaolack booba ñu ngi dox ci cadre euh, jamaatu ahli quran karim wa sunna bañ demee ne ko ah kii nga jàpp de ci ci liggéeyu yàlla la nekkoon bàyyil xel ne jàpp gii ngeen ko jàpp suñ borom a ngi jàkkaarloog yéen comme yow mii ni nga fi nekkalee eh, pale présidentiel tey su fekkonte ne kenn ci ñun te boon na rek jëfandikoo doole ci sa kaw du mat ñaari minute ñetti minute palais yëg ko réagir ceen fare ko gannaaw léegi ñu àgg def ko barab ma ne ko nag noonu palais di yégee ne laal nañu ku bokk ci ñoom mu réagir a ah, yàlla yàlla gën a mën a réagir qulillaahu asrau makra wa huwa asrau alxaasibiina aydan mi waxee pare mu ne ma ah pare nga ma ne ko waaw mu ne ñi ci des kenn amul lu muy wax ñu ne ko déedéet mu ne man de lenn rek moo ma jaaxal ci sa wax bi mooy li nga ne ñun ñoo ko tëj man dama jàpp ne yéen a ko tëj ndax man duma lenn lu dul ku leen di wéyalal si li ngeen tànn yéen ay luwaa lañ ma jox ngeen ami député ñu voté ko yéen a élire député ya wëlbati ko jox ma luwaay yi ne ma nañ ko doxal luwaay yooyu nag ñoo tëj sëñ daara bii kon yéen ko tëj biñ génnee sëñ Mor Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm mu ne ma ah waa sëñ bi ci waxam ji gune gi waxam ji lu ngeen ci xam ma ne ko dëggu kese gu kenn mënta teg benn baat ñoo ko tëj kon sëñ daara bi itam ci Louga di sëñ Xaadim Gueye ñoo ko tëj kat la procureur booba waxoon dong lañuy waxaat ci kii ñoo ko tëj kon dafa jot luwaay yii di wëcci ñiy jaay seen bopp ñu li am liberté luwaa bii di wëcci góor jigéen mu am liberté luwaa bii di wëcci sàngara si mu am liberté ñu jaay ko fu ne ba di ko jaay léegi ci sunu bitigi koñ yi luwaa boobu contradictoire ak boobu yàlla subhanahu wa taala lañ fi war a jëlee feeg jëlee ko fi coono yi du fi jóg loolu réalité la jële ko fi nag laajut paaka waxoon nañ ko ca keroog procès ba ca tirbinaal ba ne gëmuñ ne paakaa ko fiy jëlee walaw yet mbaa jaasi mbaa fital déedéet fullaak fayda ak aar sunu gëm li ñu gëm ñu doon ko képp ko fiy jële ker bu majorité sénégalaise bi d'accord ne lii daf fi war a jóg ker mu jóg fi majorité bi nag kan la man la yow la bu ki ci kenn génne boppam man la yow la kenn ku nekk na fas yéene ànd ak kilifa gëm-gëm ci diina jàpp ko jege ko xamal ko ne ko lii kat métti na nañ ko fi jëlee ay wax du ko fi jële nañu def pétition wane ne soxlaatuñ ko fi soxlaatuñ fi loi buy wëcc góor jigéen mu am liberté di jël sëriñ daara di tëj di jël imam di tëj taalibe yi nañ dëggal loolu seen digganteeg seen i sëriñ sëriñ si itam nañ dëggal seen digganteeg seen i taalibe ci daje ñoomu neen waxtaan ne taalibe yi kat wóolu nañ ñu ba ñëw nañ ci suñ gannaaw pour ñu wan leen yoon wa waaye waaye ñun itam nañu góorgóorlu matal kóllëre suñ digganteeg ñoom matal kóllëre suñ digganteeg suñ borom ci tànn kenn mu jiite ñu ñu wax ak lii fi ne nga xam ne fedar bi moo ko bàyyi woon fedar bi indi na fi ndono yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na fi ndono maa ngi koy wax biig ma ne ah am nañ fidélité suñ diggante ak Faidherbe mboolem lu mu fi andi comme ay loi ñu ngi koy appliquer à lettre li fi yonent bi sallallahu sa wa sallam woon jëlee ko ca boromam nag lépp gannaawal nañ ko kon kuñ gëm kenn ku nekk mooy tontul boppam bu ko defee kon jarul ah coow lu bari lii sëriñ Muntaxa wax ko sëriñ ma Ñas mii wax ko ci nu mu tërati eh, law na ñaseen ak sëriñ su bari ku lim juum sëriñ su bëree ko wax ne jot na ñu toog nag wax ci lii mu jógee fii dama ne ba mu jotee yàgg na jot na kilifa yooyu yal na suñ borom subhanahu wa taala dëgëral seen kàddu yooyu saxal leen ci seen pas-pas yooya ba kenn du leen mën a delluloo gannaaw te leer dama ne dana am ñu jóg dellule leen gannaaw ci seen pas-pas yooyu dafa bokk ci tactique gu franc saa yu aw nit jógee te war a mën a soppi di kilifa yu tool noonu ma tudd am décision ne lii lañ bëgg daañ ñëw jéem na a corrompre pour loola ñu bëgg ñu bàyyi ko yàlla bu ñu mën ci ñoom dara nag li ci des it mooy duñu wax rek ne na fi jóg mu jóg fi de déedéet aw yoon wu gudd la balaa booba di am waay waay ñun liñ man nan ko def liñ man nan ko def sëriñ si nañ ñu dimbale organiser taalibe yi liñ mën a defar ci daara yi ñu defar ko doy na ñeenti weer am na lu ma junjoon fii keroog waaye daara yi man dama naan rib rigam ñeenti weer juróomi weer mu réglé te loola duma sonal du la sonal du sonal kenn jullit ñi ñu ngi ci fukki million ak ñetti million waaye waaye nombre bii luñ mënut amut kenn ku nekk na def ñaar fukk par ajjuma ñaar fukk par ajjuma ngir yàlla ñu ne daara yi lañ bëgg a defar lu mu lay jox un million trois cent million ah non un milliard trois cent million un milliard trois cent millions ñaata daara nga ci mën a dimbale kenn ku nekk fukki million taaliba yi bàyyi yalwaan wutal leen fu ñuy liggéeyee di fa daan seen doole wutal leen ay ga teg fa ñuy sangu ca ndox ma fa nekk di dix million ñaata daara nga ci mën a samp par waaj par ajuma téeméeri daara ak fanweeri daara par ajuma weer wi ñaata daara nga mën a samp ñeenti ajuma yi juróomi yi daara ak juróom fukk par weer loolu boo ko songee ñetti weer ñaata daara ngay taxawal te ñaar fukk koy def ñaar fukk ñaar fukk woowu di ko def tuuti na lool waaye nag lay organiser ñaar fukk yooyu fawu kilifa yi yëpp jàpp ci moo tax sunu booloo sunu booloo seytaane mosu koo bëgg te du ko mos a bëgg moo tax ci bëggu diina liggéeyam yépp mooy discours féewale rek discours teqale rek ndax xam na ne lii gaynde guy nelaw la goo xam ne ker bu yeewoo ba yëg lim man ah gaynde guy nelaw mas nañ ko fee wax waaye lislaam la dal nag dëgg dëgg mooy gaynde gi nelaw mooy gi nga xam ne tey bu yeewoon ba yëg man manam yëg ne fii ak ñeenti weer juróomi weer ndongol daara dootu yelwaan dootu tilim sëriñ daara yi fi nekk la ñuy dimbale taxawal leen daara yi taxaw na ba noppi néew doole rekk fi ne kon institution yi taxaw na ndongo yaa nga fa ñaar fukk képp sama ñaar fukk sa ñaar fukk ñu régler problème boobu te noonu ñuy régler problème mu daara fi leen ñeenti weer na mën si mi ñeenti weer problème mu transport ñeenti weer yi jullit ñi mën nañ rek régler lépp te duy sonn ngeen baal ma ci guddal gi lii daal ñu ngi ciy woo sunu bopp te suñ ne sunu bopp mooy ñun ñëpp jullit ñi ni leen suñ borom misaale kal bunyaanil marsuus yonent bi alayhi salaatu ne kal jasadil waahid kon benn jëmm lañu bu ñu dara teqale yann yàlla dimbale kilifa yi ci décision yooyu